moom mooy bajantu di cëppi cëppi. ku yor saay tay ku yor saay tay sëriñ Sang Njaay ma ñëw ci beneen laaj bëggoon nañ xam li ñu tuddee xutbaaniya ci fikru suufiya lan mooy xutbaaniya ci suufiyanke yi boo ñu leeralee lan mooy xutbaaniya jamono bii jamono bii ñu toll maa ngi yow fii ñu defee émission bi kan mooy xutbaan xutba xutbu samaan bi. waaw xam nga dafa am ci façon xam-xam. <coughs> yoo xam ne boo ko laajee nit. rafetalu diini boo ne man la rek aussitôt da ngay gëlëmal xel yi te foog nga am kum dox. daal lañ bëgg xam ne ñun kum dox. te foog mu am kum dox. Mm. xutbaan yëtu li muy firi. Mm. li lay xamal sax ne même laajte bi laajte bi ci boppam. Mm. pour man laajte bi ci boppam am na problème. xutbaan yëtu jeex na. léegi dafa am benn xam nga ay ay paas la yàlla dafa am ay pâche paasu nubuwutu moo amoon. Hmm. tëj nañ ko yónni tëj na ko. paasu wilaayatu génn na xutbaan yi ci ci wilaay lay feeñee xutbaan yi ci wilaay lay feeñee léegi xutba seetaan bu ñëw ba nekk xaatamul lawliyaa ay moom itam tëj na paas boobu beneen paas mooy ubbi ko xat ñu ngi tuddee xilaafatullahi tabaraka wa taala boobu mu gën a fóor fukk xutbaan moo gën a fóor fuf xutbaan yëtu kon xilaafatulaay moom parce que xutbu dafa am ay daraja. dafa am ay daraja. dafa am ay darajaat. Mhm. dégg ñu ne Cheikh Tidiane muy xutbu lawliyaay kon kay leer na xutbu lawliyaay lawliyaay yëpp sunu xutbu mooy Cheikh Tidiane. kon bu sax dañuy ñëw tëj tëju lee kay xutba di jeex <coughs> léegi dafa mel ne benn néeg rek néeg bu taxaw nii. kenn yi kenn yi kenn yi téye bi ñeenti xutbu la. ñooñu xut ñooñu ñooñu xutbu yoo xam ne xutbu makkaan la ñuy doon ba mu tudd xutbu makkaan ñoom dañ leen dëj ci benn affaire rek kii def nañu ci koñ bi kii tey koñ bii kii tey koñ loolu muy xutbul makkaan zaman xutbu zaman bi ne kii xam mooy élif lépp na mooy nii bi ci boppam moom kooku nag mooy Seexu Tijaan yi léegi nag suñ demee nag su ma la bëggee woon nag Cheikh Tijaan ay kënoom moom li nga wax léegi da <laughs> da xel yi كانوا شيختان بو نديغ شيختان كينوم كيمي هيب نديغ هيبل تي ولاي مو فيال كو مو ابا بكر بكر صديق ابو بكر صديق طالب شيخ تيان لا طالب شيخ تيان ابو بكر شيخ طالب شيخ تيان لا ابو بكر مو في جيك شيخ تيان <laughs> وا داتر اي والا اي لولو دا يلا في جيك ملاكي لولو دا يوندي جيف جيك يوندي يالما ما يوندي جيف جيف جيك يوندي يالما loolu da ci yàlla yàlla yàlla ni muy defee lay defee rek faaw li may yurit mooy defal ko neex rek moo tax a Ababacar kenn la Omar kenn Ousmane kenn Alioune kenn moo tax ñoom ñëpp seen jamono ñu am mu jeexal waaye seetaan nag moom mu kan moom mooy xaatamul lawliyaa yi moom mooy néeg bi na nga xamee ne yàlla subhaanahu wa taala amoon na jibril Mikael Israfil ñeenti malaaka ak yàlla ci bopp noon la wàccee ci lu mbuut yoon sax am muy tamit nuun Ibrahima Moussa Isa ak yoon sax juróom Cheikh Anta moom de bu ñëwee moom Cheikh Anta jaay ni wilaayati ay kële yu mag yi mooy Ababacar Oumar Sow Ofa Aliou Mata muy juróom. moo tax asaabu ko asaay bii. talaay bi talaay bi yoon dana ko say saaba ñooy sama saaba say ah say taalibe ñoo sa say say say élèves ñooy sama élève. du ci limu saari moom dañuy bëri torop torop. ndax ndaxte kenn ko ne wax nga wax yoo xam ne xam nga am na xam nga bi Souvengue bu taxaw naan xam nga ñun li ñuy dal li ñuy Souvengue li leen dal ci ñu leen di jam ay baat mooy soog yu njëkk yi motu yu xoon suuf yanke ndax toog naan wamal kalbu wal xinziir ilaa ilaahuna oma law ila ref li kanisati xam nga yooyu yooyu soo ko waxee donte yow yaa ngi def fanaaw mais sa fanaaw wérut te ku mag la Souvengue yi su ma ko tuddee dana doy war ku mag la naan xaj bi ak mbàmme ñooy suñu yàlla bi yi seet wamal kalbu wal xinziir ila ilahuna ah xam nga lu doy na waar mu ne xataa pape ba ci. ndax ndax du tolluwaay moo ko wax la woon. tolluwaay boobu nag moo baaxut <coughs> moo tax war ta wax tolluwaay boobu nag moo tax mu ne xale wut ta wax war ta wax la muy wax noonu du waxu du wax sufiyaan yu mag yi. sufiyaan bu mën dëgg. seetaan da dégg mu wax li bàyyi da dégg mu wax li ñun da nga dégg ñu wax li ñun dañ def fanaw la ilaha illa dar amul yàlla xaj amut bam amut nangam nangam na effacé khair wa khairiyat delu ñep ci asal bi nga xam moy dépôt mbiri nan la sifatan wala isman wala khilafatan wala ayna wala kayfiya maqama shart wal mahq wa daki wa fana il fana fala si fi hasa ibta haqq lil haqq bil haqq fa yaqa illa la la shay xayruhu fama zamma mawsuf wa sabain ba'in bi bii bi sa pim bu mat sa deug fi de la gars yi ne muy liggéey Cheikh Ibrahim sallallahu alaihi wasallam mais li nga wax ni am na koo xam ne mu ngi toog dina la seetaan xamul li nga wax. lu nu ngay xamee bokku ci. bu ci bëgg a bokk doo colère bu ci bëggee bokk na mooy. cosaanu nit moo yàlla. Hmm? nit cosaanu moo yàlla. ñëpp d'accord ne koo ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun ñëpp cee lañ jógee te ñun ñëpp cee lañ jëm waaye fu ñu ne. koo ne foo jógee mu ne ci yàlla foo jëm ci yàlla foo ne. boo ne ci àdduna laa nekk rek yaa ngi safara parce que àdduna mënul woon tudd. dañ ko rëbb kon foo ne problème problème maa ngi fii foo jëm foo jógee ci yàlla foo jëm ci yàlla foo ne <laughs> boo ne àddina rek yaa ngi safara <coughs> parce que yaaw àddina àddina si moom it wajantu kaafi léegi suba àddina bi nga nekk noonu yaa xam nga luy àddina àddina mooy lan àddina am ku ko mën a wane lii muy àddina moom kenn amut te boo la laa ilaha illallah loolu la nga zahir bu nekkee zahir rek wi lay taxaw na Serigne Sang waaw bala ma dikk ci àddina mooy lan mhm. damay dellu siyaat ci laaj bi manam xut bu samaan wa ma waaw d'accord bëgg xam jamono bi ñu toll xam nga du neex ma rek na la la wax rek xam nga dafa am neex fi bëgg julli fi ne fi ne kay rek julli nga julli <laughs> julli rek julli rek ñu nga nga kay julli ñi ngi julli gum même ju du ñu na allahu akbar waaw fi ne ñu nangu nañ ne nga kabar nga liqaam nga julit ñi lola laa bëgg nga dugg ci wit waaw waaw waaw maa ngi ñëw ah. daa ci ñëw insha allah rabbi ah. julli dafa am ay ay ay étape yooyu jaar ah. yooyu jaar yooyu jaar yooyu jaar ba mu pare ba mu kii nga am loo defar lal fii na nga am foo jublu encore du fa la nga jublu am foo jublu <laughs> doo def allahu akbar <laughs> waaw gis ko koor sax noonu la di koor noonu la xaj mag tamit noonu la di lu nekk dafa am saw booy jaar ba pare door door def la ngay def waaw fi ne yegg waaw c'est buñ doxee nag pays yàlla bi yëpp ba mu leer ba xam ma ne xam lañ bu wax léegi bëgg moo ko directement kan mooy xutba samaan tey man la xutba samaan moom baat boobu dèjà laaj boobu dafa dayif ci man fu mu nekk nii parce que suufis muy euh, maanaam xutbaan yi ma xam xutbaan yi tëj nañ ko ma jox la preuve Cheikh Ibrahima bi mu feeñee bàyyi bi mu feeñee fii li mu wax dafa ne yonent yàlla yi kenn ku nekk ñoom dañoo ba ci géej tefsu bi nu boo jeexee rek dañoo ci wilaaya taxaw kenn ci kenn ñoom mënta xuus dugub bit wilaayatu mune man baye nak man bima ñewé ñëwee qussu bahr al-kaybi fi bahr sirri walam akwan la wala mutawaniya ñu ne ila arata xutba ahmada ahmada wa qasad wujudi kawni baniya haqiqatu xaqiqatu al kawni saanimu kawni al-afr fan musammiya li bàyyi tënjog xara mune ne wax bàyyi daf ne man bay shabrahim Ibrahim waxat xusu bëru xëy bi bëru si xëy bi mooy bëru ukat xutu bëru xëy bi fi bëru sibi ci géej wilay Cheikh Tidiane gi wilay Cheikh Tidiane xamni yoonte xam ne yonent ci tefes gi man bay bu ñëmal dama ko xuus muy géej la xuus numa neex la xuusi nak may du xuus maa géej gi di xuus muy gi wa fi bëri sirrihi walam ak wanin la wala mu ta bu ba def na man bay doydu du am xun maanaam tëlu xuma xun te doyu doyu du dama ko def non def numa neexé neexee ma dem ba jàkkalu bëru géej gi bëru ci bir géejam mu Cheikh Tidiane ma ma xool Cheikh Tidiane gis ko mu ne ko xutba ahmada ahmada léegi wa waqaasara wujur kaw nii Seyda Baniya kon nga xam ne kon mooy Cheikh Tidiane moom mooy mu ne mooy batamaaxu aalamu yàlla bi nga ne mooy aalam bi nga mooy aalam bi ni ñi feeñe ni ci mësal te xamuñ boru aadama bi kan la aalam bi ñëpp feeñee nii ni ba nekk nit ki naan diw manaan diw manaan diw te xamuñ aalam bi kan moo ko moom te aalam bi kii ko irif ki tawoon aw kër mooy Cheikh Tidiane yi moo tax ma du attitude te boo nee laa ilaaha illa rek ñëpp jógee fii ka fay taxaw samp fa nag kenn kenn la mooy Cheikh moo tax mu ne ana bil waadi wa naasu kulluhum man Cheikh man dong maa ne ci xur bi xur bañ ci xur xur ñàkk Cheikh Ibrahim Niass ba mu wéy ne Cheikh Tidiane mi mii wa ana man Cheikh Ibrahim sadiqul hibbi man maa tërëm bëggal Cheikh Tidiane man Cheikh Ibrahim ñoo mu ne laa araqee Tidiane man xaramal ci gis alam bi ku Cheikh Tidiane mu ne maa daa seexu imaam mi kur sama sëriñ bii ka sharabin sa saxaani dafa ne ñu nax nga rek ñu nax mooy looy seen mu nekk nag mu mel ne am la ba doo fekk dara xaalam bii ku fi taxaw certain mooy sa muy mooy sa mooy sa mooy sa lépp mboloo moom côté bu ne moon ihaata ay waaw maa ngi ñëw xutbaane yi nag soo gisee ma ne tey yow li nga laaj baax na mais du laaj boobu du laaju tey parce que lu passé na <laughs> comme ni yonent yi passé comme ne nga ngeen yonent passé na Ah, wilaya tamit tëj na xaatu mu ànd lawliyaa génn ba pare ku beneen tëj léegi beneen maq amul gën foo nga ma laaj waaye ba tey comme ni nga laaj comme fi nga toll ba laajee ma ko man fa laay waxee man mii man man mii man Sanga Ndiaye Babacar Ndiaye man may xutbane tey ci alam bi. yow Sanga Ndiaye. man mii di wax ak yow. yaay xutbu samaan. Mhm. xam nga laa bëggoon dégg. Ah, waaw loolu rek nga bëggoon <coughs> <coughs> Cheikh Babacar da nga am looy kàddu looy laaj. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. wa naudu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Cheikh Tidiane bi tey maa ngi lay ziar bu baax di la nuyu di nuyu gan gu mag gi nga xam ne toog nañu moom tey muy Serigne. sang njaay di muqaddam boo xam ne xam naa kuy taalibe rek xam nga ko boo ko xamul it dégg nga ko <clears throat> moo tax boo toogee moom danga koy bàyyi mbiri wàccee ko wàccuwaayam mais thème bii nga xam ne dugg nañ ci muy affaire xutbaan <clears throat> moom aajo na ñu gën cee leeral parce que mun yàlla dafa def may ndaw loo xam ne dama jàpp ne lépp lu ma gis ci diine euh, mu dese leer dama mën cee def effort ba leer leeralal ko doomu aadama yi def ma ko am le naa ak sama borom ndax yahutu banu israel yi loolu la leen yàlla woon lu leen dem duñ duñ seen yoon nekku si dañuy bàyyi nit ñi noonu rek affaire xutbaan ya nag euh, bàyyi jàngal na ko ci kaasiful baas waaye jàngal na waxtu wu nekk dana kenn koo xam ne moo taxaw ci maqaamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku bàyyi jàngal ne nit la parce que nee day dee bu dee am na ñeent ñu ko wër yàlla kenn lay jël si ñeent ñooñu teg ci place ko doomu aadama la hmm. kon du ñàkk ci jamono bàyyi ne wal waaxidul mazkur kenn kooku ñuy tudd wal xutb mooy xutb bi la Cheikh Sidiane laajte bàyyi tuddee na ku noonu ne kenn kooku ñuy wax ne jamono du manqué ci jamono mooy xutb danañ koy tuddee xutb danañ koy tuddee kaamilu asri danañ ko tuddee xalifatulaay xam naa nag yow yaa ngi ci xalifatulaay gi moo lay gën a neex waaye waaw yooyu yëpp danañ ko koy tuddee mais xalifatulaay ci jamono ju nekk ñun Cheikh Tidiane yi jullit ñi dañuy sant yàlla bu baax ndax dañ ñoo yàlla daf ñoo bàyyi diine joo xam ne ni layluhu ka nahaarihi guddi geeg bëccëg gee benn la dafa leer nañ lépp loo xam ne ni maqaama la ci diine borom xam-xam yi indi nañ nattukaay boo xam ni ku ko woote te du yow buñ la nattee foofu nga daal kenn rek moom lañ fa mën a mu dem mooy borom loolu dañ koy sante yàlla ñun xeet yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent ci jamonoom yahudi yi jàngoon téere yëpp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam daf la doon gàgganti ci seen téere yi la fa nekk xam-xam yu xóot yi yahudi doon yaakaar ne lii ku jàngu téere ba doo ko xam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dañ ko ñëw di ko laaj mu leen koy leeral bàyyi ci jamonoom ba mu demee Nigeria borom xam-xam yaa ko wër laaj ko luñ ko laaj mu tontu leen ko ca nañ nam leen ko war a tonte mhm. waxuma ñu laaj la zahir nga tontu baatin loolu du tontu. mais buñ ko laajee zahir dafay tontu zahir ñu laaj ko baatin mu tontu baatin ba gaa yi xam ne kii dafa peeg ñaar yëpp. Mhm. ñu kii ko Cheikh Tidiane wax na si Jawaahirul Maani Euh, page 648 ku fa dem danga ko fekk dañ ko laaj ne ko ndax waliyu wala aarif dana réeree benn atte ci lislaam mu ne waaw parce que kenn rek moo peg atte sharia yépp ci jamono ju nekk mooy fardul jaami mooy xutbu bi ñuy wax xalifa yàlla ci jamono ju nekk du réere benn masala ci diine wax ci ne bu kan ummiyan même bu fekkee jàngut sax dafay xam atte sharia yëpp rawatina bu jàngee nag loolu la loolu la wax Baye wax ne bu mazahib yëpp raafoon xutbu zamaan mën naa dékkilaat lépp moom kon xutbu zamaan xam na lépp Cheikh Tidiane yi wax na ci Jawaahirul Maani ne xutbu bi lii nit di xelaat ci xelam mi sax ci xutbu lay jógee waxuma laak nag lay yëngatu ci cër mi Tange Njaay nag woote na ne ma xaamu mooy boroom <coughs> maam ñetti laaj yu ma ko bëgg a laaj. su ko tontee man bokk naa ci taalibe yi bu ko tontut képp ku gëmati ne mooy xutbu Tange Njaay tooñul la yaa tooñ sa bopp. bi ci njëkk mooy <coughs> doomu aadama bu génn àddina bàyyi fi ñaari doom yoo xam ne ni ngunu ngaana lañ ak benn bàyyi tax nuñ koy miiraasee. dafa génn àddina bàyyi fi ñaari doom yoo xam ni bu nekk ngënu ngaan a bullant la mooy xamuñ góor la xamuñ jigéen la ak benn bàyyi tax muy bàyyi ndaw miraas mi nu muy demee bu laaj boobu jàllee ma jël deuxième bi troisième bi ñetti laaj yëpp bu ko tontee nag bu ngeen dem yóbbaale leen ma seen taalibe yi bokk bu fekkee laaj yooyu tontu ko képp ku gëmati ne mooy xut bu zaman sang njaay tooñu la yaa tooñ sa bopp laaj bu njëkk bi mooy dafa génn àddina bàyyi fi ñaari ngunu ngaana yoo xam ne ni masal mi mu ngi ci xalil bëgg naa ni ko Cheikh Khalil tonte mu leer lal ko parce que xutbu du réere li nekk ci Khalil ñaari nguru ngaana la fi bàyyi xamuñ góor la jigéen ak benn góor goo xam ne ni moo bàyyam ñoo bokk ndey ak bàyyi nuñ koy tonte <coughs> ni ñuy miraasee miraas bi day saa miraas charette Mohammadiya bi jàngale ci diggante koo xam ne góor la ak ku jigéen loolu lañu saxal ci miraas ñu koy miraasee góor ñaar jigéen benn pi yàlla bi li la rëdd zahir li la rëdd baat li li la rëdd zahir lañ bëgg nag waaw maa ngi ñëw zahir li la rëdd te baatin tamit li rëdd te laaj boo gis nit laaj ko am na yow foo taxaw bugg ñu tondoo fa te fekk fa nga taxaw du taxawukaay. Ah, mais mais comme ah, da ngay xam may ko may ko mu yeggal may ko mu yeggal comme comme da nga comme da nga ko ah, ji si ko fursa mu yeggale comme toogoon na doon na déglu. may ko mu yeggal xale bi hmm. laaj nit daal laaj benn laaj boo xam ne. laaj ñetti fan laaj dafa am. Hmm. laaj yu incaré am na. laaj yu weddi weddi ak laaj la ngir man dama bëgg a xam. Hmm. ak laaj la it ngir man xam naa waaye dama bëgg nit ñi taxaw nit ñi xam. ñetti fan laaj yëpp am na ci laaj. gis nga Modou Ngana koo xam ne moom doo góor doo jigéen hmm? doo góor doo jigéen doo doon ci pi yàlla bi ndax li islam saxal mooy góor ñaar jigéen benn <coughs> li góor li islam saxal ci ci miras góor ñaar jigéen benn Modou Ngana comme du góor dugg yéen ci bokkul ci miras bi Modou <coughs> laa wax nag. ya Allah Modou nga wax. nguuru ngaana moom du góor du jigéen koo xam ne góor ne jigéen saraatu wugut ci yow lur ne góor ñaar jigéen benn te yàlla bii tamit lim rëdd mooy loolu yàlla subhaana wa dafa wax ne euh, góor ñaar jigéen benn ci xàq nga ñu lay Cheikh Ibrahim mu ne ki fanaw ci yàlla ba jax tàkk ci yàlla te desu ci xadru baqaa yi kooku ci xaarifi nday mooy mooy jigéen ki boole fannaaw ak bakaw mooy moom mooy góor moom ñaar tànk taxawee ñaar mooy mooy ki nekk góor nekk jigéen waaw mi nga baal ma waxaar yi tamit waaw nga baal ma parce que ñun du question laaj pour weddi dëgg la parce que man xam naa ne yaa ngi liggéeyal bàyyi lu am solo mais dama ne li nga wax yëpp dëgg la mais xutbu zaman war naa xam li nekk ci xalil ni ko xalil tontee laa bëgg xutbu zaman bi xam nga xalil jaam yàlla boo xam ne mën na mën a non mais tout doucement li nekk sama xel mi moom ko tëbbu. déedéet léegi man li ma xam lu tax moom mënu koo xam référence ci islam déglu rek xale de référence xam lu tax. mais nga wax ma rek ba pare. déedéet jubbanti ko bàyyi la ñëw non man man yàlla wax moom. bàyyi dara wax li jëlaal wax ba pare. jubbanti ko déedéet wax li jëlaal wax xamul tax man yàlla wax moom gën a intéressé. li yàlla wax bu ko yàlla wax yàlla moo ban hadis wala ban aaya alquran moo wax li nga wax ni ah? ban hadis xam nga li ma la laaj mazahibu arbaa yëpp borom xam-xam yëpp yonentu moo ne ah. te bàyyee ko wax ah. sama xeet duñ dëppoo ci réer mazahib arbaa yëpp dëppoo nañ ne ngunu ngaana day doon mhm. wax nañ ni muy doon dee waaw ngay borom jamono jii te yonentu waxoon na ne miraas mooy njëkk a dem déedéet waaw déglu mar sëriñ bi ngaana nga ma laaj waaw borom xam-xam yu ne ne day doon nu doon dee borom xam-xam yi borom xam-xam yi duñ ay maasum <coughs> waaw laaju ñaareel bi laaju déedéet déedéet paregul de ci leeragul déglu baax déglu baax dama am na ñoo xam ne du ñu ay maasum ku nekkul maasum su wëyee ay wéem du ñu sukkandiku bàyyi dafa wax mu ne bàyyi mi nga wax ne ba mu dafa wax ne. lu mu wax kooku lu mu wax bàyyi ma ko rek. kooku lu mu wax. bàyyi ko mu yàq bàyyi ma yow li ma wax déglu ma ci wax ko. bàyyi ko yow demee na bàyyi. waaw ah fay defal defal. non doxal waxal waxal waxal. on peut respecter quand même. dama ne bàyyi dafa wax ne. kilifa nga macha allah. ok bàyyi dafa wax ne. bàyyi dafa wax ne. lépp lu sufiyan kiy wax. bu tupp ak charia dañ koy jël bu tupp ak charia duñ ko jël te gis nga sufiyanke yi ah, maanaam asba ah, ah, yi ma yi ma yëpp yëpp ñoom itam dañuy tërxiis yàlla ma yàlla baal parce que lu bëgg ma koon wax fii mais dañuy tërxiis ma jox la exemple ci loolu lu bari ci ñoom ñëpp kenn ko ne ma wax la ci ay ci ay say wax yoo xam ne ñun man du ko topp te bàyyi du ko topp te bàyyi toppul benn donte africain yi yëpp ci imam Malik lañ gën a wéeru waaye dama ne ay Ibrahima wéeru ci kenn tey mu faral sof kii tey mu faral kii tey mu faral ko jàng xam nañ ko ma jël misaal rek da ngeen wax ne ñoom kenn si ñoom wax na ne bugguma ci laal waaye dafa wax ne booy booy julli booy julli sàcc. daa ngeen daa ngeen ko ci tëdd bi ngeen jëkk a jël laxdar yu booy julli sàcc mu ne da ngaa bàggoo sàcc waaye julli gi mën naa baax moom loolu la wax. léegi dama tax di yun sax ma xam moom luy wax moom yun sax moo ne képp koy sàcc waxtam ngay sàcc ah yaa rajo sa iman ndax nag ñu seet ñun en dëgg ndax ku yàlla ci imaanam ndax ñu ndax ñu jël baaxam nit. Hmm, accord. waaw xaaral ma dem rek benn ngi noonu. benn noonu tey. laaj nañ ko. imaam maa ngi laaj nañ ko. benn waay ñëwul ci moom ci jotaayam. ne ko bon man daa am lu may laaj. mu ne ko laajal mu ne ko. istawa arsh bi yàlla wax. naka la amee. moo ko loolu mu la xoon loolu xam nañ ko waaye daal naka la xamuñ ko te laaj boobu biddaa la te niñ ko génne kii seytaane la loolu la imaam ay tontoon seytaane la biddaa la génne ko mbooloo mi jàng nañ ko baax nañ seet na mu lu wax ma ci loolu arxam bii wax dafa ne inna rabbakum allaahu xalaqa samaawaati wal arda fii sittatin summa stawaa arrahmaan mii nekk ci aras arrahmaan fas'al bihi xabiir lay ku xam xamal la ko. macha allah waaw de xaar rek. ko ñu ko kon dafa na kenn du ko xam kenn ko laaj. génn leen ko bii daan laaj yàlla mu ne nañ ko laaj. arrahmaanu fas al bii xabira tay macha allah boobu euh, Cheikh Babacar may may wax Cheikh Ndiaye. Mhm. ma delloo si à débat mhm. parce que euh, sa question bi. jàpp naa ne du ngeen déggoo ci yàgg moom ndax fi ne fi muy tontoo ak fi nga bëgg mu tontoo bokkul mel na ni yow li ngay séentu ci moom mu référé wu ci xalil nga laq maa wax ma rek li xalil wax maa ngi ñëw li ma ñëw li ngay séentu mooy mu dikk na la xalil nee nangam lii la xalil tontu ci masala boobu te moom dana du référé wu ci loolu moom ci fi muy référé en la ak su fekkee sama dégg naxu ma li gën a not mooy dafay dellu ci li muy woote ne ab sufiyanke la tey man fi ma dellu man xëy na da nga dellu siyaat man dafa am lu ma bëggoon laaj sang jamono bi ñuy def waxtaan man ak yow. Mhm. firndeel nga ne yaay xut bu samaan. wala. waaw. bon euh ligay bu samaan jamono bi moy lan. du dara lu dul fekk guddum ak bëccëg ko jam yëpp ya, jam yeb dal ci tedde motax ha ah fekk liggéeyam gudd ak bëccëg. Hmm. pour orat yam yel yeb ñom ben qibla xibla ma jël ci borom subhanahu wa taala xut bu samaan dara du liggéeyam dara dara dara dara du liggéeyam lurul foo ko fekk guddem ak bëccëm suba ngonam yépp nelam ak yeewam yépp pour tàggat bi fon foon yépp dalal ci bor seen borom moo li bi liggéeyam su ma yokkee nag xutbaane yi tuugi suma ma yokkee maqaama bi moom dana gën a dana gën a dana gën a doy waar dana gën a doy waar damaa ci yokk leneen yokkal leneen li moom guddem ak bëccëm yépp yépp dafay orati mbindaa fooli ñu xam kan mooy yunti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam xaqiqatu Muhammad lan la. mbindeef yëpp. yëpp. mais dana am foo xam ne sang mënu faa yegg. waaw daa ko mënu faa yegg waaye waaye xam tamit yàlla yegg na fa. <coughs> xam yàlla dana fa yegg moom. mu nga mel yun sam ñëwutoon fii rek te xam-xam yegg na fi. cheikh la ñëwutoon fii te xam-xam yegg na fi <laughs> <laughs> waaw dana fa yegg incha allah bon deuxième position mooy dana orienté yëpp àdduna yëpp ñu xam kuy Cheikh Tidiane yi pour mu wane yàlla liggéeyam bi laay jàngale man ñu xam kuy Cheikh Tidiane yi dana orienté alam bi yëpp ñu xam kuy Cheikh al Islam te lii mooy péeb yàlla bi nga xam ne yàlla moom la tëral ne inna laa laa yuqayyimu bi qawmin hattaa yuqayyimu bi anfusihim yàlla su fa aw xëy mukk loolu xew ñoom soppi seen bopp ñoom kon ku ku jënd barab bii yaa soppi sa bopp yàlla la beneen bi mooy yoon sam wax na ne képp ku judd sa fitra mooy lislaam ku judd sa fitra mooy lislaam te islam ñetti martaba la al islam wala iman wala ihsan borom islam ci boppam gis nga lii ñëpp jàng nañ ko ba képp koo jàngee keer foo ma jàngee lii nga jàng mais soo ko tamisee am ko wadd boo ko tamisee tamise maanaam boo ko leeralee hmm. danañ ñoo bokk parce que islam ñu yëndam ci la feeñ lam balal mooy charité muhammadiya te charité du islam charia sax du baax lu gën a garaawati charia moom du islam. charia lan la. yoonu islam charia yow yow charia doo jàng ci arab. charia man man fi ne maay laaj ngay toog. charia mooy yoon bu jëm ci islam. Ah. ma jox la pourquoi. wa hmm. kay xam nga man toujours xam-xam laa bu ngeen ma laaj parce que. moo tax maa la may laaj ah, ngay toog waaw euh, gis nga islam bu fekkoon ne yoon itam li mu ne mooy islam rek mu yem ca. ku sakku tere mu nekk bidaa du baax ku sakku xaq mu nekk bidaa du baax te booba iman isan day euh, du ñëw du ñëw. jibril ñëw ni yun yàlla لك ما من الإسلام دولو باع من أشون الله مرسول الله إقام الصلاة إتاو الزكاة سون حج بيت من الصدق دمول ده لدفن لي إيمان كل إيمان أك أك أك أك إسلام بكون مقامه أرقام نين ومن يكفر بالإيمان ومن يكفر بالإيمان فقد حبته أمله تو في آخر من قاصرين كل إيمان كل كل إيمان sàng Ndiaye ma ñëw ma ñëw ma ñëw sàng damay damay joxe dama non non ñu lay seetaan la xam nga am nga taalibe lay seetaan bëgg nañ dugg xaaral ma wax leen maanaam heure bi jot na pour ci koo xam ne mi ngi ñuy seetaan maa ngi ñëw maa ngi ñëw dafa la maa ngi ñëw maa ngi ñëw ah, ci koo xam ne mi ngi lay seetaan bëgg a jokkoo yow eh, ñu ngi affiché numéro yi ci écran bi mën nga jox ko ñoom xaaral ma jox sa taalibe bi mu monsieur la waaw man bëgg naa li mu wax waaw خم دافو اندي بن واخو شيخ تيان ولا يحيط باحكام الشريعه الا الفرض الجامع شيخ تيان داف تكني لانه حامل الشريعه في عصره باسكو مو ينو الشريعه تي جامونوم الشريعه لا بو الشريعه الشريعه بو خليل الشريعه بو الشريعه بو خليل امام مالك بو كنن كنن كنن ديريت موم موكو ينو خليفه يالله بي موين ينو الشريعه بي موم دو ريفيرو تي خليل نيت ني نيو ورا ريفيرو تي موم موم فان لاي ريفيرو mooy ci yàlla li yàlla wax. yonent bi wax ko. yonent bi wax ko foofu lay référé wu. Cheikh daf ci ne walaw kaana ummiyan donte analphabète la. walaw lam tasbiq lahu qiraatu. donte mustajaan mu teg ci ne xataa sax kooku noonu su bëggee xam dara dañ koy firil. ci arab dañ ko koy firil day dem jàngi. day laajte ñu koy firil. te pourtant li muy wax noonu lay donte ci langam la koy wax noonu lay dëppoog charia noonu lay dëppoog alquran waaye noonu lay dëppoog sunna yonente yàlla Muhammad mais bàyyi nee na bu masaay bi raafoon mu dekkil ko ku xamul masaay bi noo koy. dekkil ah, dekkil na ko ba pare yow yàq mu li xam. maanaam masaay yoo xam masaay mooy lan non déglu sëñ bi. deful masaay xaw masaay mooy lan. Hmm. voilà. <coughs> non man kay wax dëgg yàlla. wa in tasaluni. an habibi wa mazhabi. wa mazhabi. jawaabi lii na. waaye loolu du masab. masoo bàyyi du lii. xaaral xaaral xaaral xaaral. ah xaaral bàyyi ma ñëw ah, man de léegi luy sariya jaar bàyyi dafa amu ne tama sot sang sang ñu am ah, bàyyi dafa wax ne dafa am ku ne ci yoon wi ñu jël ko te ñëw xaaral ñu jël ko ci yoon wi ñëw allo asalaamaaleykum waaleykum salaam eh, sang moomu de laa bëggoon waxal léegi ma ma ni sang moomu de laa bëggoon waxal mbokk mi kan la Mouhamed Mouhamed nan Mouhamed Mouhamed Ndiaye Mouhamed yow la ñu déglu waaw sëñ sang hmm. ah man de bëggoon bëggoon naa kii ak yow xamanteeg yow connaissance wala ma xamanteeg yow. Hmm. waxal continuer yow la ñuy déglu waxal. ma ni. Ah. bëggoon naa xamanteeg sëñ sang moom bëggoon naa ka gis de. Hmm. waaw waxal continuer rek parce que loolu ma ci ci bi. yow gis ko rek nga soxla. waaw gis ko. waaw ah, boo par bala ñoo pare danañ la jox numéro boo xam ne dañ ko mën a gisee bu fekkee loolu la jërëjëf. bon man ma yegale tuuti. Hmm. man sax bu du li mu wax. ñu njàng ne mbind bàyyi comme moom. bàyyi dafa wax ne wa in sa'aluni an habibi wa mazhabi jaabi rasul alayhi salaatu wasalaam man sama mazhab mooy rasul salaam benn way ngi ne bàyyi wax ne tabashak bi asali mutabihan masabihu moom mun sadd falaala li gars yi sos nii yi falaala bàyyi mu bëgg del sama sab mooy lan yow man sabar mooy Cheikh Ibrahim <coughs> lii mbi dam bàyyi yees la man sama masab mooy Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim xamoon na lii lii ma la laaj ma ko wéddi way way kay ma ko wéddi way baa ngi <coughs> ma yokkaat bu la neexee ah. ma yokkaat bàyyi kay mooy man dégg xaaral di ko arab dama ne bàyyi moo ne wa in sa'aluuni an habiibi wa mazhabi wa mazhabi jawaabi rasulullah sato mooy yuntu muy sama masab muy benn beneen bàyyi boo xam ne ñu ne masab du benn bàyyi mu ne dañ ne ko masab du benn ay masab moo am dégg nga mu ne tamashak bi asyaal nabi muhammadin mutaabihan masaabihu masaabihu masaabihu loolu mu ngi saatu nag falaa laa yéen yi ngay suuf noonu nag falaa laa <laughs> lim bi na mbay la. Eh, Serigne ah, Sang ah. léegi jàpp naa ne yéen du ngeen déggoo ndax. Euh, comme comme comme yow. <coughs> Eh, imam euh, euh, mas xalil taxu laa jóg. kon kon li muy te comme li muy wax moom dafa. léegi léegi léegi na ma may mu ñëw si yonent bi. Ah, ma jël ki ci yoon wi te ñëw allo. <coughs> allo. waaw. salaamaaleykum salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi si mbokk mi la. man la Cheikh Seck Mbour Madina Baye Mbour. Cheikh Seck Mbour. ñu ngi rafetlu plateau bi lool macha allah. ah kay bisimilah. ñu ngi wax ne mbokk mi li mu laaj question boobu mu laaj sang bi. waaw. sang bi tontuwul ko. waaw. ndax sariya may na kooku mu donn mhm, mhm. ata baay tax bi sax tontuwul siir mhm, kon nag war nañ mu fekkee mooy borom jamono mu nu xutbu war nañu tontu si loolu. te bàyyi ba mu ne xutb dootu seen xutb yaa dafa a toog ñu koy laaj muy tontu ci sunna macha allah di tontu ci sariya ak alquran kon ko ci xadratul ko ci pays boobu dañ koy laaj ci sariya mhm. ndax ñu ngi constaté yëpp nangu ko dañ ko nangulee kon moom dañu tontu ci sariya ba lañ koy nangul ci xaqiqa dañuy nangu dañ koy nangu ci sariya mhm. kon nag loolu lañ bëggoon mu tontu ñu ci sariya mu génn merci merci sariya mooy laaj ñu koy laaj ba mu leer <clears throat> man mbokk moom lu wax man mi danaa ñëw ànd cee moom danaa ñëw nekk taalibeem. jërëjëf nañu tontu di tontu ci ak xel ñun des fois foofu amul wax sax. <coughs> kon loolu daal lañ amoon di nga rafetlu plateau bi bu baax. jërëjëf macha allah kontaan nañ bu baax ñu ngi ñaanal yàlla mbokk moomu borom xam-xam la rafetlu nañ xam-xamam yow itam oustaz rafetlu nañ sa xam-xam. <laughs> moom itam na teg ci table bi luy tax nit ñu nangu na mooy borom jamono. jërëjëf loolu laa amoon lu may merci waaye dinañ si émission bi macha allah yal yàlla barkeel yal na yàlla gën a dëgëral tali télé bi. amiin te màggal ko salaam. jërëjëf sang. Eh, xam nga téléphone. Hmm. ku nekk rek soo téléphone da nga jàppale sa waay. loolu mooy téléphone yi. kii xaw ma ko sax. tey ah laa ilaaha illallaah. wallaahi xam nga xaaral ma ñëw ah d'accord xaaral ma ñëw rek. charia ah. charia laal li ko tontoo man. charia ci boppam moo la wax ne moo la wax ne miraas bu amee miraas bu amee jëlal ñaar jox góor jëlal benn jox jigéen mu des nag ci biir charia ñu war a donnu ci wàllu baay ci wàllu yaay ci wàllu frère ci wàllu nangam nangam yu ay détails yu bari la moom yu bëree bari bari bari bëri na ci moom. waaw léegi Cheikh Tidiane waaw xaaral benn kii rek ngir yàlla ak yonent bi. xam nga moom xaaral dama lay ñaan tuuti rek. parce Euh, dama la laaj loo xam ne si xalil la nekk. <coughs> ñu nga toog reposé. parce que jógee caméra ne si xalil la nekk. Mhm. nga ma xalil taxu laa jóg. Mhm. ma laaj la loo xam ne ci alquran la nekk yàlla yaxal ko. Mhm. ci wàllu miiras. xanaa kay borom jamono war naa mën a tontu li nekk ci alquran. kii dafa génn àdduna. dafa génn àdduna bàyyi fi euh, benn mbokk bu góor bu mbokk yaay kese ki génn àddina bàyyi fi ñetti mbokk yu góor yu mbokk ak yaay kese loolu moom alxuraan ko yaxal nu ñu doon ne kenn ki dafa génn àddina benn mbokk mu jigéen rek la fi bàyyi yaay rek lañ bokk d'accord alxuraan génn àddina hmm. bàyyi fi mbokk yu góor hmm. lañ lañ bokk gis nga nit génne àddina hmm. bu fekkee benn mbokk rek la bàyyi mooy mbokk bu jigéen bu jigéen nga waxati bu jigéen bu jigéen moom. Ah. moom. Ah. bu boobaa moom moom moom mi gën bi. Ah. mbokk bu jigéen nag ça dépend lan la benn mu ne ko doomam. yaayar lañ bokk yaayar rek mbokk mu jigéen bi yaayar la bokk ak la bokk moom. bon lii ñuy def alal ji mooy alal ji dañ koy dañ koy xaaj. alal na mu alal na ci boppam dañ koy xaaj. ñu ko xaajee trois fois lañ koy xaaj moom alal moom benn xaaj bi ñu jox mbokkam bi. bu fekkee ndey mi ngi dund maa bàyyi mi ngi dund wala sara mi ngi dund ñoom dañu am ci alal mu benn mbokk mu jigéen rek la fi bàyyi yaayar lañ bokk. waaw alxuraan yaxal na ko. waaw lu ko alxuraan attee. bu boobaa day xaj alal yi. déedéet alxuraan waxul loolu. lu alxuraan wax. yàlla dafa ne falaxa sulus. waaw dañuy xaj alal ji def ko lan. Ah, ah yow dégg yow ko doon wax loolu. waaw waaw léegi muy ma non yow kay doon wax non non non non jeexagul. non yow doon wax lii yàlla daf ne. de bu wax la fi bàyyi. sulu naa sulu su kay xëy na yàlla ja. waxu sulu su de waxu sulu su. yaa ko wax de. wa mais alquran li mu wax yow xam nga ko yàlla waxul sulu su mais léegi lu yàlla wax léegi léegi lu yàlla wax. xuloo xam naa ko wax léegi. yow yow ko moom Ousmane dana laaj kii kon nag ñoo leen topp ma maa ko bëgg ko sulusu wax nga ko pare alquran waxu de yéen ko law waaw man damaa juum ah waaw juum nga yow léegi yow léegi yow léegi wax ma li wér non Cheikh Diane Cheikh Diane il faut kii bàyyi ma tuuti moom la non non sang mais comme juum kii mbokk mu jigéen bu mu bokk non yow juum nu ñuy doon xaar ma rek waa léegi man man naa juum mais xut bu moom du juum yow waxal la maa ngi wax nga dog mom waaye non non non non dulul comme dama do wax nga dog mom man ma maandu nga wax danu nga nang la ndar dar sëñ bi waaw léegi yow yow tontu ko léegi non mbeur waaw non mbeur nak léegi kon bayil beure nga waaw dulul rek delu ma xala mbeur bi ko xasee gembo waaw mu ñëw ci lambu ji mu jom ba daanu amutul lay amutul lay leneen wa xam nga xam nga qudul qudul ñu non non kii Babacar bi bi ma duñu ba ma yow babakar babakar babakar babakar babakar babakar babakar babakar babakar babakar babakar babakar babakar babakar babakar babak yow yaa juum sang Ndiaye yaa juum sang sang sang wuyu ma. Babacar Babacar a yaa juum. sang Ndiaye. yaa juum sang wuyu ma. ma dellu si débat bi mel na ni masala bi dafay dafay indi polémique te duñ fi jógee ko. te mel na ni kii joxane ma dee siyaat ci yow boo xamee ne ne yaay xut bu samaan ci xut bi la doon wax lu mu doon laajte mel na ni dëppoogu te yow ba léegi te du ngeen dëppoo duñ dëppoo te ci alxuraan la maa ngi ñëw maa ngi ñëw waaw daanu nga waaye sang buy ma sang buy xaaj yow xaaj tàngoor yi sa devoir moroon nga laaj bu nu ñuy xaajee. kon bu zaman bi waay non non déglu rek. moo waral sëñ bi xoolal ne fa polémique xoolal. ne fa polémique sang Ndiaye wuy ma. non xaaral tuuti xaaral tuuti sëñ bi dafa am question bu may laaj. attention waaw xaaral tuuti rek. bu mu polémique débat bi. parce que lii mën naa ko xaaral ma ñëw. xaaral ma ñëw soo mëntoon tontu da nga gàgg parce que man ma rek ci alxuraan. waaw mu ci alxuraan da nga gàgg. waaw yow leeralal mbir yi. non maa ngi ko doon leeral nga nga yow nga dog ma. waaw léegi moom du continuer. du may continuer comme daanu ko kay Babacar comme daanu ko kay du du ma. waaw sang wuy ma comme ko du sang Ndiaye. waaw léegi ñaari masala benn sang Ndiaye wuy ma. Hmm? Babacar wuy ma eh, léegi dama bëggoon. ndax eh, mën man naa ko laaj man. ba ba bàyyi ma bàyyi ma bisimilah nga ma laaj. mën naa laaj waaw. waa léegi si sarta ma beneen laaj bi soo paree sama beneen laaj bi nag ma ci tontu. boo ma tontee sama beneen. waaw beneen laaj moo xam ne naa la si. waaw déedéet du ma def ci xalil. man wax naa la waxu bàyyi xalil dama ne waxuma ne xalil alquran wax. waaw kii dafa génn àdduna. non doo daanu ba pare ma ci demaat waaw bi bi ma lay laaj nii bokkut ak boobu de. waaw xaaral waaw xaaral waaw d'accord na beneen waaw boo daan doo daan pare après ma ci ñëwaat xamul. waaw léegi beneen bi moom laaj sang wuy ma eh, sama question yi parce que fi ne eh, toog nañ diir bu yàgg demuñ dikkuñ te damaa bëgg ñu dem. ndax moo ñu fi indi. bu ma eh, toogoon xut ba sang Ndiaye. mel na ni de feeñal nga ne léegi yaay xut bu samaan ñun d'accord nañ ne li ñuy tuddee maarifatu bilaay am na xam nañ ne cheikhul islam alaaji ibrahima Niass daf koy woote mhm. jëfee ko waxee ko nga bokk ci ay taalibeem mhm. di ci yar ay doomu aadama mhm. mu bokk ci liñ xam mooy li ñuy tuddee maarifatu billahi muy xam yàlla euh, xam-xam la bu ñuy xamal nit ci biir néeg mu xam boromam mais su xasee xam boromam ba génn moom waa jooju sa nga kooku su xasee xam boromam ba génn moom waa jooju yaa ngi may dañuy daal di faral di wax ne ki nga xam ne maarifatu billaay xas na ko doon dañ koy tuddee ne moom ci boppam tàng Ndiaye. Hmm. wuyu ma. tàng. salaamaaleykum. waaw ah, xaaral. na kuy salaam. noo eh, ngi leen siyaar bu baax. ngi la koy delloo. Eh, waaw ñu wax émission nañ ñu ko ngi lay deg bismillah waaw sang bi noo len ci siyaar bu baax. waaw noo ngi siyaar bu baax. ñu ngi rafetlu. kooku nañ ko sang jaay waaw. dama del siyaat ci yow li ñu tuddé ci li ñu tuddé xam-xamu maarifatu hmm cheikhul islam alaaj ibrahim Niass moy sa hmm nako xamal ko ay nit ñu bari nga bokk ci ñooñu mm-hmm. di ko xam le mm-hmm. mu am lu ñu tuddee soob mbaar mooy nit ku suñ ko xasee xamal xam yàlla ba pare dafa am loo xam ne koru ko waxee ku dul xam mm-hmm. ndax tey gisoo ne eh, ñu bari dañuy wax ne parfois waxtaan yi ñu ciy def dafay génn fés ba ëpp ba tax waral ay nit di ko weddi nooy tontu foofu waxtaan yi dafay dafay dafa ñu koy fésal ba tax na am na ñoo xam li ngay wax buñ ko xamul dañuy wax ne d'accorduñ ci ndax mënuñu woon a yem ci boo ko xamee rek waxee ko ko xam allo xaaral ñu jël ko ci yoon wi allo allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw sëñ Cheikh ñu ngi leen di ziar. mbokk mi kan la. waaw man damay leb tur bi. mbaa aw yiw ngay wax. damay leb tur bi. ma ne aw yiw ngay wax. waaw yiw kese la ñu wax. waa man xam nga tur bi ngay leb moo tax ma jàpp ma laaj la loolu. <laughs> waa émission bi moom ñu ngi koy rafetlu. ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax. Mm. kilifa googu toog foofu nag xam naa ne dafa bëgg a daane sang ñaay moo tax muy wax waxam mm. yii. mais na bàyyi sëriñ bi wax. jërëjëf sang waaw loolu laaj ma ne li ñuy tuddee maarifatu billaahi mhm. comme xam-xam la boo xam ne ci biir néeg lañ koy jàngalee mhm. te parfois ñu gis ñenn ñoo xam ne dañ koy fesal ci biir mbedd mi mhm. ba tax ñoo xam ne ñi ko xamul sax dañ koy weddi ndax foogoon ne foofu am na fa ak la jëte gu am waaw dafa mel ni rek <clears throat> li la waxoon au départ waxtaan gis nga wàllu wàllu xam yàlla alquran def ci addu nit yàlla yu baax yi addu ci ci liy war ndax dañ ko war a war ci biir néeg ak lu war dafa am loo xam ne da nga naan dafa am loo xam ne ci biir néeg lañ koy wax. dafa am loo xam ne ci biir néeg. am na loo xam ne ko mën a ci biti. Mm-hmm. mooy suru nikaxa. suru nikaxa. Mm. suru sëy. Mm. moom ci biir néeg lañ koy defee mu nekk xàq ga ñu nëbb ko ci biir mais bu doom juddoo dañ koy génne lañ doon nëbb ci néeg ba bu doom juddoo dañ ñu génne ko ci biti. lañ doon nëbb ca biir néeg ba booba xaqiqa la xoon dañ ko waxat ci biir néeg bi lañ ko doon mais bu bu amee lañ doon nëbb noonu la ñuy gën a ci biti teg ko lii la gaa yi dëmbëggat mu ngi nii doom jaa ngi nii tudd nañ ko diw te peut dañ ko nëbb pour que pour que mënuñ ko nëbb ko <laughs> ah pour que mënuñ ko nëbb toujours rek te bu xaqiqa bi boo demee demee demee demee un an deux ans trois ans quatre ans am dara am fa tuuma am moo tax alquran ci boppam jàngal ne wasamaay saati loolu loolu mooy lan ci olof lan asamaan ak bërëm bu bërëm ak dellusi bu dellusi fan demoon asamaan asamaan bi fu mu ne woon fan la fan bu dee suuf si fu mu demoon kon fa fam ram sa lillaay léegi luy asamaan ak luy suuf lan mooy asamaan ak lan mooy suuf loolu la nit nit yàlla war a bàkkoo man duma référence ci xalil ba yu ma xal ankabar ndax sama sëñ moom ko aaye. day ma ñëw rek asamaan waaw dama lay wax rek. Hmm. asamaan am lum dox. du di du lii mooy asamaan waaye mënsal boo xam ne ñëpp a ko bokkoon mooy li ma a waxoon affaire loxo ñëpp a koy bokk li ñëpp bokk ci asamaan mooy lii. li ñëpp bokk mooy biddiw weer jant lii ñëpp a ko bokk. li ñëpp bokk ci suuf si mooy lii suuf la lii ngelaw la lii garab lii doj la guddi bëccëg yii nit ñëpp a ko bokk mais lu tax yun sama wax ne. al-laylu nar nahar matiyataani pour qu'on baax ila axira war leen guddeeg bëccëg pour nga dem àlaxar question yi fi la nek ci xel man nga ton ci xel bu la nekkee xel xel moy lan rek xel nga ne mooy waaw jaam yàlla guddi jaam yàlla bëccëg mais mais waroo ko parce que war war do wacc ba dem àlaxar la wax te bo jamee la guddi gi bu nga ba bu dem ci biir bo jël ba da ngay ba ba takusaan après nga bay ba timis kon bàyyi ngay bay warto warto guddi war la war ba ka la wax kon su boba mo la xam ne mbir bi amna na yeneen yeneen yoo xamna mu ci bir bir yi dama wax ne Cheikh Ibrahim ci bopam ngir yi am ni su moom laalu ci marifatu billahi nak mom moy lan amna lo loo xam ne am na ko ci bit ni lañ koy waxe amna lo xam nga wax ci bit parce que boy jihar ni ci bit di ko yalla lo koy wax xaw ma ko yow lañ ko la voilà da nga jël nit ki yàlla dañ ko war a gis yàlla dañ ko war a xam yàlla dafa def nangam yàlla moo ñu lii yàlla mën a xam leen ma njëkk ngeen may jàmm su ngeen ma xamut du ngeen may jàmm yàlla xam yàlla moo dagan ci jur bu nekk ngeen di ay alxuraan di ko layal ana alxuraan di ko lay di ko jaar di ko jaar ba mu nangu nga suub ko nag suub ko boo ko suub ba mu am fattu ci yàlla day fattu ci yàlla pare nga di ko di defata musakara ñu tuddee musakara ci biir léegi lañ koy defee léegi nag bu musakara amee ba pare léegi di gars yi géew dafay am ak comme lu mel daayira gàmmoo ñu waxtaan nag di isaara lan mooy xam yàlla pour ni ñu koy dégg man ci am vraiment lu ñu mën a au moins parce que suñu suñu suñu suñu débat daaw ah suñu débat daaw li ñu fataan fii ñaata nit ñu ci tuub bu baax léegi bu ñu nga kontaan ci. daaw daaw suñu waxtaan daaw maa yow. xam nga ko de. ànd lim bi ci lim ci tuub bind nañ ci lu bëree bëri ak ñi ci ñi ñi ñi jël ni ko tiyaan jël ci tijaan kenn xamul lu wax kenn xamul nu mu toll te te dina ko war a lool te buñ noppoon amaan ñooñu ñu ci dugg voilà dama bëgg wax rek ne la mbir débat dafa am lu koy neexal bu fekkee ne yow da nga bëgg a daane waay ne ne charia charia taxu ma ñëw fi man xam nga ne mais fekk dama wax dëgg rek su yow suuf nga may laaj xam nga charia taxu ma ñëw fi man déjà suuf nga may laaj mbir suuf nga may laaj yow da nga ñëw fii. xaw ma tëj naa buntu boobu léegi kay wax man ci li may laaj. buntu boobu tëjul na fi foog ñu jaar ci ba pare hmm. yow chariatu waxoon moom moo ngi may laaj. tasawuf laay wax ak nga ma waxoon. Mm, moom laa lay wax ak ba léegi. lii moo tax ma ñëw fii ci laaj. kon boo indi ko am na ne loolu loolu pour ay kii la rek. Euh, jànguwul parce que da nga ko ko walaay charia doo ma jàpp tontu ko. ba ba léegi tasawuf laay wax ak man wala génn génn naa ko. kay charia. waaw ah. wa ate charia. wa la. man maa ko sara loo xam du ko xam mukk lu mu njàng njàng njàng arab maa ko sara loo boobu buntu naa la tëj naa ko man man tasawuf laay wax ak yow. wala demal ah? demal bon kon mel na ni su ma la déggee eh, wax nga ne. <clears throat> nit ki buñ ko dugalee ci biir néeg. di ko sax na def ba xam yàlla. bu génnee bu doom ji juddoo dañ ko war a génnee ci biti. kon bu xasee xam yàlla am na ci lu mu war a mën a waxee ci biti. waaw am na ci mu mën a leer du lépp daal. déedéet d' foofu d' accord naa ci yow. Euh, nañ sang ku ñu teqantalal. Euh, lu séparé. li ñuy xam nga tasawuf ñu bëri dañ koy contour. Mm-hmm. ne am na kuréel yu bëri dañoo taxaw ne tasawuf laysa minal islam bokkul ci lislaam hmm. maa ngi ñëw léegi nag ma bëggoon yow noo noo may noo may noo may dëppalee baatam mu'min muy muy ku gëm yàlla baatam muslim muy ab jullit baatab taqi muy ko ragal yàlla. mooy muxsin mooy muxsin boobu. waaw ah, dégg nga ak baatab tasawuf. looyu hmm. toon ñuy wax diw jullit la diw mu'min la diw taqi la bàyyi tasawuf lu tax. waaw ah, tasawuf baat bi. Hmm. baat bi baat bi nga tudd baat bi nii ci ci ci ci lamiñ. Hmm. tasawuf baat bi rek nga tudd nii rek. am wilaayatu la. ak wilaaya ak wilaaya la. dégg nga bi de bu amee sifa melo. loolu melo la bu nga xamee nag leen nekk xaqiqa su ma la séenee ngay ñëw sa melokaan lay gis. loolu mooy charia. yoon baag yoon baag na pour xam ne ki ma doon seet ma nga nel waaye xaw ma kan la wala gis naa kuy ñëw charia ngoogu charia ci yoolu jëm si nag charte islamique kon ci yoolu jëm woon. noo tudd man waaw. Cheikh Tidiane waaw waxin la rek. waaw mel mel nu tudd dama Cheikh Tidiane tariqa baa ngoog. léegi nag ma jëfante yu xàq ba ma jëfante mooy yoroon seen nangam ak nangam nag lii mooy xàq bi léegi nag. la ma soxla ceew léegi nag nga defal ma ko lii mooy maarifa parce que lii lii da nga laa soxla li ma def nii yëpp jaarawaay la waaye lii la soxla ci yow. shari'atu tariqatu xàq ak maarifa ñoo ànd. muslim ak taqi yi nag. ak maa ngi ñëw muslim. mooy sharia. muslim mooy chariatu Muhammadi bi mooy muslim daari muslim mooy mooy bi la preuve yonent salaam waa kookoy kookoy ñu arab yi ñoo ñëwal ne ko li ko war a ada arabu amanna kul lam tuuminu walakin quulu aslam naa wala ko iman fi qulubikum kon kon kon muslim mooy daari chariatu Muhammadiya sallallahu alayhi wa ko léegi muslim boobu nag moo war jibe ñëw ci moom ne ko luy muslim maanaam luy luy mooy luy islam man asron laa ilaaha illallah iqaama salaat itaaw zakat hajjul bayti waaye ba muy demaat daf ne ko luy imaan gis nga daayira moomin a ngi nii luy imaan boobu mooy daayira moomin daayira moomin boobu mooy daayira wilaayatu wilaayatu nag xëy na mooy Cheikh Tidiane wilaay li mu gën a mooy tariqa wilaayatu mooy gën a tariqa muslim mooy gën a charia fii ay anbiya fi nekk fii ay awliyaaw lii mooy daayira moomin moo tax man li wax léegi na Alxuraan nee na wa man yakfur bil imaani ku weddi imaan kon ku imaan والاسلام دي لي اوتو اسلام كوي دي اسلام دي كوي دي ايمان من يكفر بالايمان فقد حبت حمله تو في الاخر من الخاسرين تقينا تقي ماغي نيو ماغي نيو ماغي نيو مام كاي مام كاي سومال تسو لو واتلاي يوكاي بار دولما رك واو لغي ايمان بوبو كان لا كان موي ايمان باغو وري اد توكي باسكو كو نيك داغ بونا گم نا يالا گم يالا دا فا ام تاكلوم اك تعرف gëm yàlla takkalu mooy ñëpp ne gëm na yàlla gëm na yàlla gëm na yàlla gëm na yàlla gëm gëm na yàlla an yàlla yàlla di ko gis gëmoo yàlla billaahi la si laa ilaha illa gëmoo yàlla hmm. yàlla di ko gis yàlla yàlla hmm. yàlla man maa njëkk man maa mujj te maa feeñ ku feeñ ñu gis la waxtu woon di ko gis rek wir nga yàlla léegi su boobu te daari iman mooy mooy saaru yàlla loolu mooy awilaatu dëgg da hmm. nga dégg tulu kon daari moomin boobu nag haynu wilayatu mujtama mata ar kone rabbana lulu baax rabbana rabbana innana samihna munadiyan yunadi li imani an amir barikum fa amana dul rabbana faghfir lana sunnubana wa kaffir hana seet wa tawfana mal abrar ñi wa tawfana mal abrar li kalma abrar abrar mu yonent yi wa tawfana mal abrar ñi ngay rey ànd ak abrar ñan la léegi nag li mooy daaru mu'min léegi ñëwal ma ci taq yi taq yu mooy li yun sam li li jibril mu jëla yun sam ne ko léegi nag léegi léegi nag léegi nag comme lay ne ko luy iman luy islam luy iman mu ne ko léegi nag hmm. ma mën a ihsan ma mën a ihsan man ihsan nag fii la gisal amee nag <coughs> mu ne ko amal ihsan an tahbudallaha ka annaka taraahu te fa in lam takun tara fa innahu yara waaw la ma ci indi li gisal amul kay amul rek mais la ci li lu ci indi ay gis yàlla soo gisee yàlla soo gisee yàlla ba lay gisal lu ci ni nañ gisal amul rek fekk amul dana amul rek mu jeex waaye amal ihsaan an taqbudallaha ka annaka ka annaka taw ci la ko defoo taraahu ka taraahu kon dagan na léegi nag fay fekk amoo yow fekk amoo gis yàlla fay na moom yàlla comme yow gis kon ku feneen yàlla ko gis moom waaye ki di gis kon bàyyi ko ci moom ñu layee yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wa salaam ne Moussa moom ñu laykat yi dañ ne Moussa moo bëgg gis yàlla waaye li ma njëkk laaj question ci loolu ñoom wala ma jaa Moussa li li mii xaati naa li ma mën a miixa luy miixa yàlla question bi kooku laaj ci seen duñ dem ngay jàng kepp nga xam lii non yow lañ koy laaj fi ne ma yaa toog ñu dara laaj te man mën naa ko laaj luy miixa yàlla non non man laaj waxum laaj lu man maa lay laaj tontu alxuraan de boo ma laajee si miixa laaj laaj laaj man bañ ma la laaj alxuraan sëng man bañ ma la waaye miixa doo tontu moom sëriñ bi doo tontu sëriñ bi waaw waxal ak man ah, man maa lay laaj ah, merci merci merci tontu ma sama taqiya kii yàlla dafa wax ne Moussa ne ko wala maa jaa Moussa li miixaatina ay naa wa kalama rabbuhu xaala rabbi arini unzur ilayka xaala lan taraani lan gii jànkoot arab yëpp liñ saxal mooy lan day dakk du saxal tabidu nafsi man maa ne du du dëgg da lam day dàq day saxal. ci naka maa wax la ci naka. très bien. waa kër Moussa. dañ wax Moussa lañ du mën a lakka. non non bu ko ne lañ du mën a lakka rek duñ la gëm kon foo la war a ne mu jeex. xataa naar laaw. jaxarata ba kon saxal na. dàqal na saxal na. lan nu laata laaw na naar laaw jërtal bàyyi ma ñëw. mu benn. Mm. lan tanaalul birra man yàlla du ma nangu seen ndox dina bu sawul safar lañ jëm ñu ñep lan tana lan tana lu dirra duma nga seen bax mukk yéen kon fuñ jëm mbon lañ ñam man ko xam te safar safar ngay jëm hatta tunfiqu saxal nga hmm yow tu saxal nga saxal rek mbaa doo baaxle saxal rek la nga di wax day saxal nga leen lolu jangal arab bi dañu am problème ci li benen bi ci bop Moussa itamit yalla dafa nako lan tarani waye nak xoolal affaire interact ci kanam mu ne ko walakin ولكن انظر الى الجبل فاستقر مكان فسوف تراني ذلك فلما تجلى ربه رب له رب له ربه لي رب رب سوس بو خلا عارف لي لي رب رب لان لا موي بروم يلا بروم بروم بروم موي كات مومير كلام رب نون رب دو بروم لا مي فيري رب موي كي يار رب ما يار كات رب مومين كاي ياغي رب لي رب بو لي لي لي لي لي في يب دي وقتان ني nit ko rab ba mu mel lii may rabbu. allo ah, ah, lii may rabbu dama bu fekkee da nga jël rabbu nag jëlee jëmee ko ci yàlla ma jox la benn am rabbu dafa am aay bu mu xam ne ci lay feeñee mooy boo nee bisimilahi rahman rahman mooy rubbu bi yëpp. te bu fekkee yàlla mooy rubbu bi yëpp mooy rabbu kon bisimi kan la allahu kan la feele kan lay doon de kon bisimi kan lay doon allahu kan lay doon léegi nag rabbu comme rabbu mooy rubbu bi yëpp te mooy rahman. léegi nag kuy raxmaan xam-xam yàlla lii mooy xam ko tasawuf lii mooy tasawuf boo xam ne kenn du ko mos ci àddina bii ñu nekk lu nga jox ko Cheikh Ibrahima Niass radiyallaahu man sama man sama wax neexul parce que parce que man xam naa ne moom mi li may laaj wala keneen keneen keneen keneen nga taxaw di xaar sama defet du am du mos am sama tax du suuf. dëkkal dëkkal ma ci man waxuma kii man maa yooyu ñuy wax. dama pare nga ci loolu. Mhm. Euh, bëggoon naa nga leeralal ma euh, li ñuy tuddee al almajsub ci li nga xam ne moom nga yëngatu nii muy affaire sufu yanke damay dégg toujours ngeen yëkkati baat bi diw majsub la majsub mooy la majsub mooy koo xam ne nekkoon na nit simple nii nit simple nii rek lekk naan sëy takk jabar am doo non asof Mahjub pardon Mahjub laay départ Mahjub d'abord Mahjub ci ngay départ waaw ah, Mahjub ah, ah, parce que yoon la waaw demal jaar yoon mooy nit simple nii koo xam ne ndey ngi bàyyi judd nga asamaan ngi suuf jant weer guddi bëccëg dundu dee féeru am ñàkk lii yëpp xam ko waaye réeré yàlla mi ci mi bind lii moo tudd Mahjub kooku mooy Mahjub mooy ki yàlla xiir boppam ki yiir voilà majsoob na mooy ko xam ne jokkoo na ak nit ku baax mu jox ko tarbiya mu jax ba fan aw ca ba jax takk takk takk takk takk yàlla bi nga xam ne xëyri wa xëyriyaat yàlla ca aslu boo xam ne amagul benn milliard fond gindagul ci moom wax naa ko léegi ci arab sànq sànq sànq ci gën a ci waxtaan bi pays bi nga xam ne bàyyi dafa wax Cheikh Tanta war ko ci jawru maa ni bàyyi wax na ko pays la bokkaa ne foofu ba fa demee foofa laa sifatan melotukaan amutut wala isman tur tur sax amutut wala xilaafatan boobu xilaafa uutu yàlla amagut wala ayn ana ak naka sax amagut wala ayn wala kayfiya mu nekk maqaam boo xam ne choqi la wala maq wa dakki maqaam boo xam ne mu mel ne ak wàllu azaasa quraan la jëmee la reto xaasihan murashadihan من قصد الله من مقام الشرق والمحق والدك ما ديك بو ديك لا كونتك تي كرام بوكو لا كونتك تي كرام تري طيب، بيان ما نيو لي في بو فا جيخا بار لي نك لي نك لا صفه دا باغي جيخون وال ايمان كلا فن باغي ساني هون ساني بي تالبا صفه بو نيوت دوتا نيك نيت بو اسو نيوت دوت نيك بي خلاف نيوت دوتا نيك نيت لي نك لوي صفه بي لوي اسم بي لوي خلاف بي sifa a nga doon wax ne amut mooy Seydina Muhammad mooy melo yàlla subhanahu wa taala. kon loolu faaw nga doon maj soob mooy tax nga xam ko. d'ailleurs boo dee monsieur doo xam lii soob laa nekk nga indil ma yëpp. monsieur mooy fanaw nga xam nga wax bu amul leeral du neex waaye monsieur mooy ko jeex ci yàlla rek tag fa. tag rek. boo tàggee dañ la war a wàcc xanaa. waaw kon dootoo nekk monsieur. léegi nag wàcc bi mooy la. li wàcce yow laa koy laaj. très bien monsieur mooy ku ñu def fanaaw ci yàlla ba mu jeex tàkk ci yàlla déglu bàyyi li la bàyyi des mi moom mi moom faydu bi mooy atte ba tey hmm. bàyyi des dafa wax ne yow mi jeex te des solo ci wàccaat amoo am amoo adra baqaay yaa ayyuha majzubu in lam tasluki soo suubuxaatu ci yàlla subhanahu wa taala fa anta yow abtar ko dag nga ci yàlla mu benn mu ne yaa yow saalik e yow saalik bi war a sóobu te sóobu guloo in lam tasluki fa anta mahjubun fa say man sabi daal nag inimal kaamilu ki mat waaye mooy wax inimal kaamilo man xajjam bay na maqaamin fa haasa man sa jaxal na la min li sa xaj sa wax xaqan uis la ko bàyyi waxaat ne sax lu gën a garaawati daf ne is naa lay sa min ni wala ma bëgg laaj ni mbàyyi wax na ci lu garaaw daf ne is naa lay sa min ñaari bëgguñu ci woon safaraay te xool bëggu sa tariqati yéen far wala bëggu sa tariqati yéen ñu nekk mu ne maj zuubun lam yasluk wa saaliku la ñuy suba in baaxee ala xalima wax wax wax wax xaalis sériment. Serigne Serigne bëgg ci man Serigne Sang. waaw waxtu yi dab nañu. oh waxtu bi nag man wax naa daaw ne la boo ma invité boo ma invité ci ay une heure trente kii trente minutes parce que damay pour ma dawal a bëri. bu ma invité bu fe bu fekkee. waaw léegi léegi léegi su ma ñëwee fii nga ne. ma waaw même wax rek. dañu ma dañu ma dañu ma ñu yokk dix minutes. waaw kay. ah bon kay waaw ah. dama bëgg nga may ma may. bu ma lay jëlee dinaa la jël deux heures de temps maa la ko wax. tuuti na trois heures de temps nga may may. <laughs> waaw léegi ñu ne ñu dem dix minutes. waaw kay kay ma ne la ma jóob mooy ko jox tàkk càlla te abul baxaw léegi luy baxaw yow lañ ko laaj sax fanaa fi laa yaqa fi xilaafati bàyyi ma waxuli fanaa fi yaqa fi xilaafati gars yi li li li tëj baxaw ma jóob li tëj baxaw ma lan hmm. mooy nga ñëwaat ci nit ñi eh, di julli di woor di di lekk di naan eh, te bu njëkk da lekk amul naan amul mbaay amul li li li baxaw lii yëfa yaa ngi ci jur yaa ngi ci li yéefar yaa ngi ci jur yaa ci lekk naan ak takk jabar yooyu yéefar yi ñu ngi koy def julli yaa koy def a ah, lu yéefar def julli du ko def ah, non je n'ai pas compris. dama ne comprendre ma que moo tax may. Bakaaw Bakaaw bi bi bi bi ma dégg gars hmm. bi nekkee ñoom. loolu yëf yaa ngi ci lii yaa ci. pour solo yëre bu rafet nii lekk naan dugg ci oto li may lii mooy Bakaaw lii yëf ci julli yaa ngi ci. Hmm. bu ñu rawanteel kon. waaw kay waay lii Bakaaw la ñuy seeti. fan nabqaa baqa an bin nabi muhammadin wa najli samari ismi fil jawi wal farqi kullu man alayha fa wa yabqa yabqa googu mooy Bakaaw. fa yàlla des ngay des gis nga yàlla asal bële yàlla yàlla yàlla mi ngay wax mooy yàlla noonu hmm. bi yàlla gars yi gëm ne mooy yàlla noonu yàlla jóge na foofu yàlla dafa tuxu ca maqaam ba nga fay sax ba waaw amul tax ah ah loolu rek laaj ma rek yàlla la tax yàlla ma xëy ba mi ngeen gëm yàlla xëy ba mi ngeen gëm ma nga aras aras aras sarut aras mi ngi fii mi ngi fii toog aras mi ngi fii ci biir toog fii dee doy sang arabanaa si bila billaay bu fekk aras ne fii yàlla yàlla yàlla ma yàlla xalak léegi aras saruwul la Aris. Mm. Aris nekkul ci ko asma nekkul fii nekkul mu ngi jege lool daf lay mm. mm. jege bëgg la jege sa bopp yow. Aris bi yàlla jàngale moom ca Aris. Rahman Aris istawa. daf lay jege bëgg la jege sa bopp. Rahmaanu ala Aris istawa. istawa waaw léegi léegi nag lu Rahman. kon da nga ne mooy yàlla. yow am nga ay éléments. am nga éléments yoo xam ne mën a mën a wax Aris léegi. man sama élément yi taxuñu fee ñëw yow li ñu fee li <laughs> ok ah, parce que man xaaral fa man am ah waaw man ma wan ma élément non baax na parce que man xaaral fa xaaral fa boo tax yéen tamit koom soobu xam yàlla wax am sa bopp xam yàlla man xam naa sama bopp déedéet ah nga ma déedéet déedéet li ma wax ki laa wax naa sama bopp déedéet lu tax nga ne ma xamoo sama bopp sa bopp ah. xam ko yow fuy sa asal hmm? fuy sa asal déet fi ni man yow laa laaj yow da nga ma xamoo sama bopp yaa xam nga yaa ma wax fuy sa asal <laughs> fooy sa asal dama ko ba yox ba yóbbu xam ak ba. man li ma wax moom. amul ko yàlla bind nga mën ko weddi man nga man nag c'est xam nga wax ne kii nii ay kii yooyu am na yoo xam ne yooyu yooyu ay fol rek yooyu du ay xam ko waxtaan. mais man li may laaj nii yow sa asal doo ma ko mos ba yóbbu xam ak ba. Hmm. nubuutu yonent salaam bi sa nubuutu yow yow nubu ba ma fa nekkee la fa doon doo ko wax mbubu yow na xam ak ba. wilaay seetaan gii taw na ak yaa nga fa woon doo ma ko mos ba yóbbu xam ak xilaafa baa ngi si biir gars di biir nii ñëpp a ngi ci biir dañ dama woon sama a moon sama xam ci biir billahi si laa illa xamoo ñu ngi koy pour nga pour nga xamal ñi moo tax ñu waaw xamal na yaa wax léegi ne yàlla koy kenn xam ci biti yaa ko wax léegi ko déet duñ ko leeral yaa ko wax de yaa wax ni naa li nga xam moom bo bu fekkee gëm nga yàlla topp ma ñu dem waaye yow kay yow kay wax naa la leeral naa la leer naa leer naa li moom dafa ci wàccee daara daara daara daara daara pep suu suu waaw bu lay nag léegi nag nga def suñu waxtaan. waaw tënk ma. Mhm. laay déglu. léegi beneen bi si tegu mooy euh, ñu ngi nekkoon ci affaire comme lan mooy su lan mooy mëjsub. mëjsub hmm. mooy na mooy ku jeex ci yàlla te dil suhul dil suhul nag xam-xam la. moo tax bàyyi jox laaw mu ne bàyyi laa wax xam-xam de parce que mooy suma wax naa mooy suma mbir man de mooy suma mbir waaye de bàyyi dafa wax ne raaytu rasulullahi gis naa yontab yàlla bi aynan li rahmati mu ne ki jëm yàlla subhanahu wa taala yonte boo nag bii ci moom yëxte di lay jubalee man dala képp kuré fan fii ma xam ne xam ci àllu kerte ndeg àllu kerte mooy fannaaw ka jeex foofu caadu boobu yonte ma la fay ma la fay génnee su ñëpp ngeen fa jëm mu daltu bii yoman sifa fa ba nga reyoon génnaat wa yoman isum ba génnaat wasaan seen xilaaf ba te lii nag wa huwa ila wa nabi bina yasri wa maa huwa ila wa nabi bina yasri te bàyyi mu ngi feeñ fi Sénégal sanga waaw am na lu ma bëgg a laaj muy lan yàlla dañ koy xam wala dañ koy gis ñaar yëpp nag yo hmm? yo yo hmm. naka la xamee te la kon man maa la laaj man damay laaj man. ah mu ngi noonu rek yow dama leen yow doo leen gis xam na ñaar laa mën a boole mais su ma la déggee nii rek mun ma la xam man nag sa tournée waaye xaw ma la su ma gisee nii taxuma la ba xaw ma si mun ma la xam foog mu ànd gis ak xam ñoo ànd gis door a xamle dama leen woon ba nga gis yàlla subhanahu wa taala jaarat ma xamal la nag fi mu jaar maqaama yi yàlla man man lay lëkk yàlla ma xaq rek kenn la ba naa ne huwa lawlu wal aaxiru wa zaahiru wal baatin wa bëgg na ale ko yàlla am na ma ma taw yow war a jaar kay comme yàlla moo yàlla rek la waxoon xaqu rek la nekkoon te daf la wax ne kuntu kënsa lam u faax bëptu an warafa ma ma bëgg ñu xam ma day leer na faqaatu xalxan ma bind mi daf fa taxaraftu lum ma xam ne ko ci moom fa bii yaxas fa ci moom nga ma xamee waaw xam nga moom ñëpp d'accord nañ ci waaw xam nga nag mën ta mën ta te gis amut nu ma lay xamante xaw ma la te gisuma la dégg dégg laa ci am rek xaw ma la xaw ma la dama la dégg rek seetu seetu seetu seetu yan FDV nangam nag loolu dégg-dégg la xawuma la mun ma la xam mukk ci loolu te su ma jàngalee su ma jàngalee ci xam-xam bii walaay aw gis nga am xaw waaw am ma jokkook ak yow xam door mun a am. te noonu ngay defal taalibe. waaw laaj ba fii te nii noonu la ma bàyyi defal man man noonu lay defal taalibe. li nga wax nii hmm. bo demé ci philosophie yi philosophe bu ñëk bi ñuy def ñuy leen tuxala maaw kàllaam hmm. al mutakallimoon hmm. dañ da wote lu melni ni mais ñom su euh nit ki buñ ko da xamal yalla ci façon bobu ñom daf da fase ak jabaram bu fekkee amoon na jabar way way ma ngi ñëw may ma yeggal sànq damay laaj may ma yegg bal nga da ngay xam limi walis daf da fase jabaram tas keureum gaday ak njabotam dem fekki waji pour mu xamal ko lolu te fa mel ni lu mel noonu nga wax yow ca ban nga koy defee ndax. dama ne la yow laaj ma fi daaw. Hmm. tas sa kër. dem ci xàll bi yaa nga xaramal taaru yàlla yi. Hmm. lu war xam ci loolu. bu leen a xaramal ana kan ci mooy xaramal taaru yàlla yi. ñeen ay jamam yow sa sa taar la sa jabar sa taar la sa doom sa taar la ngay joxe dafa taar daw responsabilité daw responsabilité moo tax nga dem ci àll bi. bañ a fay courant bañ fay ndox bañ a fay dépense bañ a kër bi moto comme comme mat di mooy def loolu comme mat day toj histoire di ko duggee côté bu nekk bruit bi kër gi bu xale yi jabar yi courant bi ah nu mu tudd ndox mi ah, location yi fekk amagul kër nangam nangam xat-xat yooyu di ko fekk ci moom mu ba pare mu xat-xat yooyu yëpp nag bu boole ko ci ba pare uti nag xam yal su ma la ne toj sol mbasee bu rafet gis neex ah. ut oto bu rafet kat kat kër gu rafet étage di lekk yàpp bu suur naan kan ba naan naan boisson yu sedd te di nelaw ba guddi nga yeewaat lii mooy arif bi la tey. démb ñu ko def yëpp mutuñu arif bi la sànq kaay taxaw loolu mi daan gën a not ci ñi dañuy wax ne. Hmm. Euh, sufiyaanke yi. Hmm. ñu duñ lekk lu bëri. waaw dañuy mos tuuti. waaw la la plupart sax duñ lekk loo xam ne yàpp la. duñ lekk loo xam ne am na diw. Hmm. ay gerte la ñuy lekk. Hmm. ay fruits. Hmm. pour seen roo mën a gën a biil ci yàlla. loolu may may may ma yëgle yow nga tuddal ma fi léegi lekk yàpp naan tëdd. waaw loolu nañu comparé. ma maa ngi ñëw waaw maa wax naa léegi bu la aramal taar yàlla. aramal ma ko dama. dama aramal sëriñ lay dama nettali li wax ñoom. waaw li ñu wax ah, amul dara amu ci. Hmm. dara amu ci dama ne la xanaa bàyyi bi su bàyyi mooy bàyyi mooy bàyyi mooy ma maami sufiyanki yi di seen bàppa bàyyi ñes mooy maami sufiyanki yi te mooy seen bàyyi. dana lekk yàpp di dugg ci oto moo fi njëkkam DS moo fi njëkkam téléphone te moo fi tax solo te moo gën a xam yàlla ñëpp ci xaalam yàlla bi kenn du mel ni moom. min azali ila abar kenn du mel ni Cheikh Ibrahim te daan lekk bi sa yu rafet du tudd bu baax du lu baax damaa ne sufiyanke yooyu def la démb duñu sufiyanke motuñu moo tax bàyyi xam lu mbind ñu ko laajee sufiyanke ak yow xam lu mbind daf ne waqat tata baatu kalaamal arbaabil du nga sama gars yi de maa arfi dama leen وما تكلم إيه في قدم التي أدنى مراتب الفتح عند والحقيقة و وما سمى فكيف وإن بقاها قر من أهل لا يس ليب مي باي لا كون ني سما كون نكو باي دا فني وقت تبعت كلام الارباب المعارف فما رايت كلامهم في القدم الأولى التي هي هي أدنى مراتب الفتح marat أدنى dul bax adna to lo mo gëna ñew ñun bay ñess li li do non dem su yanki ñu lo mo gëna tuti ñun suñu matay fadu yi suñu fadu ñun chebrahim lo jige tuti man wal haqqatu saniyatu haqqa ñaar bi ci kanam wa ak ñettal haqqa bi mo na fama sama do ma xet xey sa façon dem gor ñu wax gor yoy su xet man waaw kon nag fekkee fi soow ma ndaka beneen bur yi ndaka beneen bur yi nag moo andi beneen ca kanam ak ma ne wa in waqaha shay'un xarwa lu tabaraka bu ñëwee min ahli faydati la yastaxrab